li am ba am mooy ñaari journaliste convoqué nañ leen bon man la la la keneen laa gën a miin muy Pape Moussa. parce que man maa ko bàyyi j'étais le directeur de publication de de Tribune. voilà <laughs> man ma bi ma démissionné en janvier 2022 moom fa wutu. je le connais c'est boo xam ne encadré naa ko il est rigoureux il est sérieux xam naa ni bon bi xam nga comment dire rek léegi tarxiis am <laughs> xam nga tarxiis am heureusement sax moom dafa jër ak copier coller Euh, wute na ak ñi nga xam ne dañuy def que bind que ni euh, les troupes sont aux diapasons du chef hmm. loolu lu sur le plan de la communication li muy lu mu undu dafa garaaw loolu moo tax it tey jii xam nga DIRPA yaa ngi koy tudd mais DIRPA du jóg rek communiquer hmm. la DIRPA ne communique hmm. que si elle reçoit des ordres justement de la hiérarchie de euh, affaire armée la direction des relations publiques de la police duñu ne policier c'est-à-dire que benn booy mbëkk na benn policier rek ñoo ñu bind léegi de déedéet tout est réglé cest dire que dafa am dafa am fu muy jaar division communication gendarmerie c'est la même chose du saa yi bu ñu waree wax dafa ñoo jot véritablement ordre émanant de la hiérarchie il faut ñu xamee ko noonu maintenant man li may plaider au la de toute considération c'est vrai que c'est encadré dans le code de la presse ak euh, correct mun a dem ba retirer la sax kii li nga xam mooy carte nationale mhm. moo tax ku bëgg carte nationale il faut nga am cutus le cutus du Corée d'abord avant ngay def li nga xam ne mooy euh, démarche yi pour am euh, carte nationale de presse mais dama ne dañoo war a jëlaat code bi delloo ko assemblée nationale parce que am na texte yu bari yoo xam ne war nañ ko jooyanti mhm. mais on devra en profiter pour renforcer les pouvoirs du Corée mhm. pour que le Corée Corée soit un véritable gendarme un véritable gendarme qui a qui a qui est armé de son bâton. Un vrai ba nga xam ne lu mu jël ala kulli àll boo ko. boo ko kiiwul moom am na pouvoir am fu muy jaar pour injonction boobu ñu war ko mën a respecter. ñu appliquer ko mais imagine toi aujourd'hui le correct day bind Ablaye Mbow Ablaye Mbow lui répond par un autre communiqué. Mhm, mhm. yaa ngi dégg. chaque te ñun dañuy dénoncer un peu yenn. yi nga xam ne mooy xew si yeneen secteurs yi alors que ñun suñu secteur moo gën a feebar secteur yëpp. Mm. tey suñu secteur ñun moo gën a se moo gën a feebar nous avons besoin de réguler. d'accord mm. te tey luy xew si médias yi. ak les médias bon je dis pas. li nga xam ne moom ngay jàngee c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle mass média jàng ko. xam nga mais aujourd'hui à travers les masses médias on a l'impression qu'il y a des médias intermédiaires ah et ces médias <laughs> intermédiaires là mais nañ koy toggee ak nañ koy jouer mhm. tout en ne maîtrisant pas l'information la nature du traitement de la collecte de l'information la nature de la diffusion de l'information mhm. je dis mën na nekk xoolal attention mën nañu am fi ay <laughs> ñuy collègues. bon mhm. merci beaucoup. donc il faudra quand attention. merci beaucoup dañoo nekk si këru liggéeykaayu média uh-huh. il faut quand même que nguur gi kooku maître moom je porte ce plaidoyer il faut que nguur gi jàppale les entreprises de presse mm -hmm. par rapport à un environnement économique beaucoup plus sain beaucoup plus rentable oui, il faut quand que bu ko defee surtout nag par rapport au vieux débat lié à la à la loi sur la publicité uh-huh. il faut loolu ñu toggaat ko xoolaat ko bu baax il faut que ni jàppale ñu ba nga xam ne mais le journaliste